relation mhm. comme ni ko président de la République waxee yu mhm. mhm. ñu bokk lépp euh, je pense que la plus forte communauté disons étrangère bi dëkk Sénégal premier yi ce sont des Guinéens dem nañu ba mën nañu leen wooyee sax Guinéen ay sénégalais lañu ndax yàgg nañ fi am na ñoo xam ne fi lañ juddoo seen i papa ak seen i yaay ak yëpp fi lañ juddoo yàgg nañu fi euh, am na ci ñoo xamee ni toog nañu ay at ñu seen tànk Guinée surtout ci période bi nga xamee ni y avait un un régime différent euh, ñeen ñi àndoon ak Cellou Dalein Diallo li ñu doon reproché sax mooy ni mënuñu woon sax dugg seen seen réew ba ci élection sax bu doon am mu xawoon jafe si ñoom donc euh, peuple la boo xamee ñaari peuple la frontières yi tubaab bee ñu ko indil waaye yoo xamee ni dañoo yàgg bokk xam nga muy Guinée Mali amoon nañ fi fédération du Mali ak yeneen ak yeneen yenn réew yooyu ñu seq yu ñu wër dañu am ay rapports yoo xamee ni dafa dafa yàgg mais man je je veux plus m'appesantir sur euh, benn solo boo xam ne président de la République euh, mu ngi koy benn liggéey bu am solo boo xam ne mu ngi koy def fi ñu toll nii mais les gens malheureusement duñ ko duñ ko fësal même dans son son propos ba muy jàkkaarloo ak euh, le général euh, Doumbia mu ngi koy wax ne ko dafa am yenn ci ay réew yu mel ni sa bos ñu ne ni dañoo bëgg génn ci CEDEAO waaye faw ñu xool lu ñuy def ba génn boobu bañ am donc moom il est en train de jouer sa partition pour que ces pays là yi nga xamante dañu ne ni dañu bokk AES mais bëgg ne ni génn nañu CEDEAO wala taxaw nañu ci tànk génn CEDEAO pour ko ñooñu dellu si parce que comme l'a dit le président de la République il faut qu'on puisse renforcer et raffermir la CEDEAO et ça avec tous les pays membres de la CEDEAO même ñi nga xamee ni dañ cee bëgg génn ba taxawal seen beneen alliance muy Guinée muy euh, Mali Burkina je pense ak Niger mais le fait que mu wax ko ci euh, euh, président wu Guinée fàttali na ko également ci euh, yeneen réew yi mu jaar yëpp c'est un rôle boo xamee ni moom lañ doon xaar ci le président de la République et qui le maintient ça veut dire que am na lu mu jëlee ci rôle bu Sénégal am depuis assez longtemps déjà avec le président Ablaye le président euh, euh, Macky Sall également raffermir ko pour sur le plan diplomatique au plan africain que le Sénégal puisse jouer son rôle. Et le rôle que le Sénégal joue, le rôle que le président de la République a joué ci dëkk yi mu dem gum mooy wan leen ni ñun Sénégal dafa am benn kàddu goo xam ne dañ ko am te dañu war a doon ay puso di ñaw euh, te euh, wax na ko président bu bu Guinée c'est un moment boo xamee ni dafa soxla woon mu fàttali ko nekk on est des amis on est des pays frères euh, et tout mais CEDEAO bu ñu bëggee mu am doole faw ngeen dellu siwaat te ngeen xoolaat bu baax a baax euh, taxawaay bi ngeen am pour ne ni da ngeen di génn ci CEDEAO je pense que c'est assez important que que loolu mu soulever ko le partenariat entre les secteurs privés